asalaamaaleykum suñu mbokki internet di leen nuyuwaat bu baax di leen ziar di leen bëggee ñuy suivre sur Wassare Lamb Wassare TV kon ni ma koy defee rek à chaque fois seen émission jàngat lamb doorati na euh, ma fas yéen cee ànd ak nag ki nga xamante ne moom mooy sama chéri sama compagnon de guerre suma lépp muy bàyyi jiili ah euh, dama koy bàyyi mu mu nuyoo euh, ñu xool nag ba xam mi ngi ci forme ndax léegi instant moom moo ko tàmmal dama ko tàmm moo tuma koo muñ moo namul maa ngi lay nuyu. <laughs> Euh, chéri Ndomo Kër maa lay fay di nuyu képp koo xamante ni euh, mbokk internetu Wassare Lamb nga ñu lay jaajëfal bu baax a baax a baax fu waaye mën a nekk ci réew mi ak bitim réew ñu ngi nuyu euh, ku ci nekk sa tur ak sant ñu leen jaajëfal bu baax a baax a baax maa lay fay sama chéri bi. nuyoo bi am na solo nga def sa balaan yi. waaw tey balaan la indiwaat. ñëw rek yaa ma gën a xam. Mm. waaw couleur la couleur jàmm la. <laughs> couleur jàmm ndax yow da bëgg jàmm. macha allah nuyoo bi am na solo mais tey Baye Djily hmm. euh, dama bëgg tey ñu waxtaan ci li nga xamante ni xam nga euh, actualité xam nga làmb instant bi dafa am loo xamante ni nu muy doxee. Hmm. ndax waxoon nañ ci sax mais wax waxaat bari wax. Hmm. ndax ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñuy seetaan chaque jour nañ leen indil loo xamante ni donte bu ñu liirul journal. am na ñoo xamante ñu ngi toog di ñu seetaan di ñu déglu. ñu fas yéene waxtaan nag ci ponk boo xamante ni euh, benn cercle VIP. mën nañ ko tuddee VIP ku ci mel ni Balla Gaye 2 ak euh, Gris Bordeaux. Mm. Tapha ak Boy Niang. Mm. Garga Mbossé ak Sa mm. ndax euh, dafa am combat yoo combat yooyu ma lim gisoon nga ni ñu bari dañoo yaakaaroon ni wala ñu bari yaakaar nañu ba léegi combat yooyu taxaw na taxaw na te yaa ngi dégg chaque jour combat yooyu noonu taxawam dafa des. su ma nee dafa des. démb dégg nga camp Tafatine. Mm. ñoom ba jëluñu avance. Mm. ci kombaam ak Boy Niang mm. beneen bi mooy Garga Mbossé ak euh, ki nga xamante ne moom mooy Sa Thiès promoteur bi taxaw na waxoon ni combat bi taxaw na. ba tey ñoom ñaar combat bi mën nañoo wax ni ba léegi taxawul. Boy Niang Balla Gaye ak Gris Bordeaux dégg nañ Gris Bordeaux mu ne dootul bëreetul Gaston. ba ko laay sax am nañu ay sources que ni mu ngi ci combat boobu noonu. chaque jour quand promoteur la. ak mbër yow loolu noonu nan nga ko gisee par benn par benn est-ce que tey bu fekkee ci temps Tapha Tine Tapha Tine niveau bu mu toll est-ce que tey war naa taxaw mm, def benn ñu def benn conférence de presse ndax mm. yéen a ngi fa woon. Mm. ñu ngi fa woon waa saare kii wax fii kii wax fii te laalu ñu naada. est-ce que loolu noonu jaadu na ci Tapha mbër mi fu mu toll ak tabe niveau lépp muy Tapha di booy ñaax ba pare est-ce loolu jaadu na. Euh, soxna Fatima laaj nga laaj bu am solo vraiment parce que làmb dafa am nu mu baaxoo mooy ci coow lay commencé ci coow lay jeexee ñuy nuyuwaat bu baax a baax a baax euh, Pape Thialis borom Leewtoo production suñu papa la. Mm. Euh, xëy na nag nit ku nekk sa dayoo ngay waxee ak sa tolluwaay ni may waxee nii xëy na suma tolluwaay la mm. wala sama dayo mm-hmm. parce que combat buñ ne taxaw na. Mm-hmm. pour man balaa benn mbër di déplacé wu. ka que ce soit muy euh, Tapha Tine bi am booy Niang ak keneen ku mun ti doon war ngaa mën a xam ni lay tax a jóg parce que mënoo ñëw ci combat ñu ne la kaay sa combat yow ak tafaatin taxaw na nga déplacé wu ñëw ba ci euh, plateau ba wala nga ñëw ba fi ngeen defee jàkkaarloo presse bi ñëpp ñëw ñu annoncé ni réew mi ñëpp combat tafaatin booy ñaa taxaw na te alors ko booy Niang laalul avance Tapha Tine laalul avance loolu du erreur promoteur bi mais seen erreur la ñoom ñaar. parce que tamit mag lu ko teree añ rek añ na tafaatin bi muy déplacé wu di ñëw au moins waroon nañoo may na yëkkati sax li tax lu loo xamante ni tey bu ñëwee dina mën a xam ni kat man jox nañ ma loo xamante ni téye naa ko looloo tax ma déplacé mais mënoo ñëw ñu déplacé loolo nga ñëw sol blouson sponsor boo xamante ni euh, bo d'ailleurs kooku tey bu ngeen bu làmb ji taxawee wala bu ngeen jouru làmb ja moom moo leen di accompagner ngeen sol blouson am ñëw taxaw presse bi ñëpp wër leen nga sànni track booy ñaa booy ñaa sànni la track te alors loolu combat moom taxawul loolu du loolu mooy taxawal combat parce que promoteur bi man damaa jàpp ni ci sama xel mu gàtt laay waxee damaa jàpp ni xëy na ba mu koy def da doon sonde combat bi ba xam askan bi bëgg nañ ko wala déet moom mu affiché combat tafaatin ak ak Boy Niang taxaw na combat boobu bu taxawee askan bi ban gis-gis lañ ci am ñu ci bari apprécier mu xëy na mu am ndog-ndog ci diggante bi nekkoon di jaabante ci yoon ak yu mel noonu mais làmb du loolu moo koy taxawal. Mm-hmm. parce que gis nañ ko ci jour boobu ci jour jour jour boobu la déclaré ne combat booy Niang euh, Sa Thiès ak Garga Mbossé taxaw na. Mm-hmm. ba ba tey jii may wax ak yow Sa Thiès laalu 15 mm-hmm. Garga Mbossé ba pare am na ku jege sax Boy Niang ku ma ne Pape Thialis daf leen wax ni. dans un mois dinaa leen jox avance. waaw ah, xam nga loolu tëggul làmb dans un mois ñoom ñu nangu ko ba pare déplacé wu ñëw xam nga tey loolu manque de professionnalisme mu ngi ci biir parce que Boy Niang tey ni mu mel ci làmb du gan Tapha Tine ni mu mel ci làmb du gan ndax ñoom ñaar ku ci nekk bëre Tapha Tine na sax li nga xamante ne mooy euh, drapeau wala couronne roi des arènes parce que bëre na ak Balla Gaye bu daanoon Balla Gaye day doon roi des arènes. bëreeg bombardier. bëreeg bombardier. Mhm. booy ñang bëreeg ay ndaanaan yoo xamante ni. Mhm. tey kenn du leen présente ci làmb. parce bu ñu ne ko ci loo jugee mu ne Sa Thiès laa daan daan naa Garga Mbossé. Mhm. bëri naa la déggee dee mu daan ma. palmarès bu baax la ci làmb kon ñooñu duñu ay gan ci làmb mais staff yi nga xamante ni ñoo ànd nañ bëri. war na ñoo xam ni di gaa yow sama xarit nga. séq nañ lépp mais bu làmb bu ñu contrat lié contrat moo ñu lié. parce que papa booy ñaa wax na wax ju am solo. ne Pape Thialis xës naa ko jox sama kàddu ba pare duma ko tegg mais est-ce que jiile jarul agent yi léegi ñoom ñooy wax ko ñoom ñooy combat si ñoom lay jaar est-ce que jarul tamit manager bi nga xamante ni ñoom ñoo daan waxaale combat yi ñu jël lépp léegi teg ko seen loxo ndax boo gisee léegi euh, manager yi turu manager rek la de. Hmm. mais agent yi ñooy waxaale combat yi ñooy def lépp xam manager lu mu ci am signé jël kii am pourcentage jeex na tàkk mais est-ce loolu tamit amul lu muy yàq. Ah, parce que léegi làmb dafa amul lu ñu gisuloon ci làmb muy agent. ak ménageur agent ba moo lay lijjanti mooy démarche combat bi wala bokk moom la ñuy woo mu wax ba déggoo ci kase woo ménageur bi yónni ko ménageur bi xam lu mu am dem signé ji hmm. bari na ci ménageur yoo xamante ne bu ñu taxawee ci ci ci presse bi ñu wax amul kenn ku ci lekk dix pour cent amul. wala kuy xamal mbër dara. wala nga xamal sa mbër ci lan la nekk amul parce que li leen mbër mi di dooyee mooy yor nga carte ménageur yow yaay ménageur am yaa yaa ne ci ginnaawam demal signé nga dem signé bu dee 2 millions nga jëli boo ñëwee mu may la 200000 wala 100000 francs ngeen quitté mais te dafa am loo xamante ne danaa dox ci làmb mbër mu nekk ki la engagé am 10 pour cent ci sa salaire ci sa contrat. Mm-hmm. maanaam lu mu munti doon 10 pour cent nag pour ñi ñi nga xamante ne 100000 bu nekk suma ma juumul mille 000 francs nga ci am. Mm-hmm. loolu nag xaalis bu demee ba yegg 80 millions yow ménageur bi war ngaa mën dara. gis naa ménageur boo xamante ni voyagé na. Hmm. te ñun ñu ñoo ci gën a am nu ko leer dañ koo laaj mu ne wóoru ko xamul ni sa boppam tukki na wala. tukki man xam naa mbër mu mag boo xamante ne xam nga nu mu daan def. Hmm. day jël licence am téye ci presse laay hmm. day jël licence am téye promoteur woo ko mu daag déggoog moom ci combat xam nga nu muy def woo quatre ménageurs ne la Fatima nga ni waaw dama laa bëgg a yónni ci kër gi père Gaston wala dama laa bëgg a yónni kër père Luc Nicolaï wala dama laa bëgg a yónni ci diw nga dem jëlalin ma fa léegi sama contrat nga signeel ma jëlal ma fa 40 millions wala jëlal ma fa 20 millions mais ci biir 20 millions yi am nga fa 300 mille ci guddi gi nga xam ne da ngay déplacé wu dem kër diw mu jox la 300 mille nga ñibbisi léegi yow boo demee récupérer xaalis ba signé yaa engagé combat bi mbër bi même bu bëriwul yow ménageur bi yaa dugg niru ba ñoom ñi nga xamante ne ñooy engagé mbër yi xam nañ ci loolu. làmb na toll na foo xamante ne war nañ ko defalaat niñ ko war a mën a defaraatee mooy euh, toll na ci tànk boo xamante ni mu ngi mu ngi mu ngi bëgg a yàqu parce que làmb mënul yàqu mais mu ngi bëgg a yàqu li koy yàqu mooy ñuy annoncé combat yoo xamante ni taxawul gis nga ci diggante Gris Bordeaux ak Balla man génn naa fi ne Sénégal Père Gaston bi mu ñëwee yan combat la njëkk a déclaré ni moom la bëgg. xoolal combat yu mu déclaré ak combat yu mujjee tëgg. moo lay wan ni plan A la jugee dem plan B kay dafa yàgg ci làmb mm-hmm. man xam naa ni wiiri wiiri jaari ndaar mm-hmm. parce que Père Gaston bi mu ñëwee dafa wane ni booy Niang Balla Gaye la bëgg mm-hmm. wax Gris Bordeaux Reug Reug wala Gris Bordeaux Sa Thiès Gris Sa bi mu demee ci Gris Bordeaux Balla Gaye la ko proposé ba mu demee ci booy euh, ci ci euh, Balla Gaye Gris Bordeaux la ko proposé Boy Niang xoolal kase bu ndaw bi ñu ko proposé mu bañ koo combat bi. 65 millions lañ ko fay pour mu jël Balla Gaye mu bañ. bi ma ko waxee nag ñu bari ci site internet bi euh, bind nañ ŋàññi ma ne ma noo xamoo li ngay wax naan Samata Ndiaye mais yàgg-yàgg. Mhm. Euh, li ci kanam raw li bët. parce que yàgg-yàgg gis-gis bi ñu ñëpp dañuy mujjee gis te ku gis nen ni nen mais nag Père Ngagne Diagne wax na ko de. Mhm. Balla Gaye di kuy bëree ak moom booy euh, cinq million daanul Balla Gaye. déedéet Balla Gaye boo ko jëlee. Mhm. nga bëree ak moom. Fatima donte dalay daan bu la daanee da nga pare ci combat bi am xaalis ku la gis. dëgg la ba pare di nga am tour moom. nga am xaalis mhm. di dawalaat oto bu rafet ndax Balla ma daan. Mhm. sa kër boo dee R plus 1 nga def ko R plus 4 parce que Balla la daan. takka bu dee benn jabar nga yor deuxième femme. Balla la daan parce que dina am ampleur quoi dina am ampleur. parce que mhm. Balla la daan. mais jël Balla Gaye ci 65 millions. def 65 millions yëpp ci combat bi. làmb ji jeex nga am jafe-jafe ku la gis yéene la sarax wala mu yërëm la du noonu. Hmm. làmb dafa am nu koy doxal. Hmm. daa am ay normes yoo xamante ne mooy doxal làmb ñu ci bari nag dañuy bëgg damay bëgg des fois ñu génnee affaire supporter. Hmm. Euh, affaire fans club waxtaan en tant que amanteur bi nga xamante ne lépp luy jëmale làmb kanam. ci loolu la ñuy jëm. mais làmb moom fi mu toll nii euh, Gris Bordeaux Balla Gaye donte bu dee donte dina am. du père Gaston moo koy tëgg. Mhm, ndax dégg nga lim ci jot a wax. mais mais nag euh, Gris Bordeaux mhm. am na droit ne Gaston du ko tëggal mais Gris Bordeaux est-ce xam ne dafa am ay kilifa. Mhm. waa Fass buñ d'accord ci combat boobu Gris Bordeaux d'accordul ci combat boobu Gris Bordeaux xam nga day sëgg bëre. d'accord mais waa Fass bu bu bu ñuy ànd ci combat bi Gris bu leen tegalee lu leer li tax mu ne du bëreel père Gaston Fass dinañ nangu parce que Fass ay ndaanaan dafa nekk ba pare ñi fa nekkoon ñëpp ñi ci ëpp dañoo takk ngemb ba tekki. mais Abbas Ndoye waxagul déggaguñu Abbas Ndoye fi mu waxee te Abbas Ndoye ñëpp xam nañu moom mooy seen kilifa. Mm. ba léegi daal mën nañoo jàpp ni combat boobu moom dina taxaw ndax Luc Nicolaï mu ngi ci combat boobu am nañ source yooyu noonu. d'accord mën na taxaw ci keneen. Mm. mais pas ci Père Gaston. pourtant Gaston mën na yow Gaston jinne la de. Père man maa la wax loolu. Père jinne la de. parce que am na loo xamante ne xis naa dox ci boppam ba pare. gis nga li daal Gris Bordeaux. moom la euh, kii euh, nu mu tuddati euh, papis général doon déclaré ki nga xamante mooy Assane Ndiaye xaw moo lay wan ni loolu da dañ koy bàyyi xel ci làmb ñoom Gris Bordeaux loolu lay daw mm. parce que nee na avance bi niñ ma ko joxee rek su ma ci naree dawaat toppaat ci noonu rek mm. combat bi dina ma rëcc te bëreeg Balla Gaye dafa laaj concentration bu doy mm-hmm. bëreeg Balla gay dafa laaj mm. moyens yëpp nekk sa wet loo soxla nga génnee def parce que Balla du mbër moo xamante ni mbëru kii la ma ndaanaanu ndaanaan la. ba pare dégg nga Père Moussa ñu ngi lu wax. bu biñ ko laajee biñ ko laajee ci làmb kan la la wax. pour l'instant Balla Gaye du sa mooy wax du sa wax. wax Père Père Moussa ngi. kon loolu ñi ñëpp ku nekk ci làmb da xam ne loolu lu mën a nekk la. te lu jaadu la parce que Balla dafa fonk bis. Mhm. ba pare ñi koy encadré ñëpp dañoo mën làmb. Mhm. kon nag làmb moom noonu lay demee. Mhm. Euh, soxna Fatima loolu daal moo nekkoon loo xamante ne sama gis-gis la. te waroon naa ko mën a wax ci làmb ji daal. am na solo mais dafa am ñoo xamante ni dañoo bokk tamit ci làmb mm. ndax euh, père Cheikh Ndiaye père Xës ñu koy nuyu au passage mu nekk coach booy Niang mm. am na tamit lu mu wax ci loolu Pape Diagne Seras mi xam te ni moom tamit manager la ñëpp xam nañ moom mooy manager ñoom armée ak ñooñu noon moom it am na lu mu ci wax mm. léegi dañuy dem déglu leen te ñëwaat après ñu xool nan ko gisee aca aadama salaamaaleykum Fatma maa lay ah, di la jox sa wàccuwaay euh, di bëggee waa wasaare yëpp di leen jox seen wàccuwaay di wax ne euh, Fatma Euh, dañoo ne ku wàcc sa ànd ànd boo dem fekk fa borom euh, gis nga su fekkoon ne promoteurs yi dañoo tënku si li nga xam ne moom mooy réglement mbër tënku si li nga xam ne moom mooy règlement comprendre euh, je crois que làmb du yàqu parce que tey dañoo ne manager yi ñoom ñooy interlocuteur entre li nga xam ne mooy le CNG et les lutteurs soo fi bàyyee li nga xam ne nag moom mooy manager dem jëli li nga xam ne moom mooy ASA à chaque fois si problème yooyu noonu la ñuy lañuy la ñuy am comprendre nga euh, di wax ne euh, Gris Bordeaux Balla Gaye euh, li ko yàq man gis naa ne est neexalu ko parce que gars yi dañuy wax waxu yàq est-ce que làmb jooju yàqu na parce que Fatma man gisaguma fu xaalis delloo de waaw est-ce yàqu na làmb la joo xam ne làmb ju làmb ju neex la parce que gis nañ fi Gris Bordeaux jox nañ ko fi Balla Gaye jox nañ ko fi mbër bi ko fi joxee mbër dafa taxaw si saa si def déclaration ne bëreewu ak moom euh, loolu combat boobu loolu moom moo ko jaay après gars yi topp si topp si topp si ba mu mujj d' parce que papa moo demoon jëli avance ba comprendre te moom waxuñu woon ak moom. Euh, di wax ne Gris Bordeaux Balla Gaye euh, ay ñu bokk làmb ñoom ñooy laxasoo yooy goj dafa war a rafet daal dafa war a rafet parce que ay nit moom bu ñu nekkee problème mënut a ñàkk mais am na yoo xam ne dañ koy waxtaanee mooy li ma wax rek bu ñu tënkoo si charte yi nga xam ne moom la CNG def rédiger si texte yi. je crois que réeroo du am quoi moo tax euh, dama naan nañ jox manager joobam jox agent agent joobam jox coach joobam jox directeur technique joobam mbër mi aussi xam joobam xam ne euh, dafa am encadrement boo xam ne moo nekk si gannaawam euh, bu dee décider aussi comprendre am na ñoo xam ne da leen a war a xam nga consulter ñu waxtaan ba déggoo ba nekk si ay kàddu mais boo boo boo boo demee waxal sa bopp wala nga jëfal sa bopp jëlal sa bopp je crois que toujours moom mooy indi problème yi nii ngay gis si làmb ji. Euh, xaaral ma ñëw si beneen euh, enregistrement. Euh, Fatma deuxième bi ma bëgg a wax ne làmb dañoo toll si phase boo xam ne lu ko soqali la ñuy wër mais wutuñu loo xam ne lu koy delloo gannaaw la tafaatin ak ki nga xam ne moom mooy Boy Niang Sa Thiès ak ki nga xam ne moom mooy Garga Mbossé bi Thialis di taxawal li nga xam ne moom mooy combat Boy Niang Tapha dafa ne bëgg na bu ñu déggooyee kàddu balaa weer bii dee mu jox yeneen ñaari mbër yëpp avance Euh, bu ñu fàttee nag dañoo nekk si pandémie euh, nekk si période boo xam ne wax dëgg yàlla képp koo xam ne génne nga sa xaalis jox ko rek da nga ko joxe si gëm yàlla mais xamoo fu ñu jëm parce que saison bi ubbeegul jàppaguñu date comprendre boo mënee yëkkati avance jox ko ay mbër wax dëgg yàlla ñu ngi ko séqal war nañ la mun a jàppale. Euh, même kaddu parce que si droit kàddu kaddu boo ko xasee ba joxe rek tey jii nit ki nga waxal ngeen fasante couleur joxante loxo rek loolu droit da koy nangu. waxatuma ki nga xam ne da ngeen a xaatim mënte li nga xam ne moom mooy këyit mu yore contrat ki yore contrat mooy li ma wax rek moom mooy dellu siwaat euh, mbër yi balaa ñoo jël combat nañuy waxtaan ak seen staff staff bi nañuy waxtaan ak li nga xam ne moom mooy manager bi euh, manager bi nay waxtaan ak promoteur bi loo xam ne buñ si tolloo mu def ko wala buñ si tolloo comprendre mu doon loo xam ne lu positif la ma euh, di wax ne loolu rek laa amoon si lu may participer si débat bi di wax ne les personnes qu'il faut la place qu'il faut les hommes qu'il faut à la place qu'il faut Fatma euh, toujours nag loolu moom mooy indi ñun suñu problème ñun waa làmb euh, dañuy fekk euh, chauffeur ñu bugg ko dawalloo avion wala ñu fekk koo xam ne day dawal avion ñu bugg ko dawalloo train du sotti moo tax ku nekk nañ la jox li nga moom te ñu respectante je crois que loolu moom mooy li nga xam ne mooy doxal làmb Sa Thiès ak ki nga xam ne moom mooy Garga Mbossé combat bu neex la mais Thialis dafa ne woon waxul woon dinaa dafa ne bu ñu d'accord ci kàddu dinaa leen jox avance wax ak ñoom ba tënk waaw ah, léegi nag comme yoragul lu mu leen jox je crois que foofu moom gars yi dañoo war xaar rek te xam ne gor moom su waxagul moomul boppam waaye bu waxee yeew na boppam ah, loolu rek laa amoon lu may wax ah, si internet yi nga xam ne ñu ngi si wasaare di leen jox seen wàccuwaay Fatma jërëjëf sama jigéen maa ngi lay bëggee bu wax yow waa wasaare taw féex ak ma deuxième bi ma bëgg a wax ne làmb dañoo toll si phase boo xam ne lu ko soqali la ñuy wër mais wutuñu loo xam ne Euh, lu koy delloo gannaaw la euh, Tapha ak ki nga xam ne moom mooy Boy Niang euh, Sa Thiès ak ki nga xam ne moom mooy Garga Mbossé bi Thialis di taxawal li nga xam ne moom mooy combat Boy Niang Tapha dafa ne bëgg na bu ñu déggooyee kàddu balaa weer bi dee mu jox yeneen ñaari mbër yëpp avance bu ñu fàttee nag dañoo nekk si pandémie nekk si période boo xam ne wax dëgg yàlla képp koo xam ne génne nga sa xaalis jox ko rek da nga ko joxe si gëm yàlla mais xamoo fu ñu jëm parce que saison bi ubbeegul jàppaguñu date comprendre boo mënee yëkkati avance jox ko ay mbër wax dëgg yàlla ñu ngi ko séqal war nañ la mun a jàppale. Euh, même kaddu parce que si droit kàddu kàddu boo ko xasee ba joxe rek tey jii nit ki nga waxal ngeen fasante couleur joxante loxo rek loolu droit da koy nangu waxatuma ki nga xam ne da xaati a xaatimante li nga xam ne moom mooy këyit mu yore contrat ki yore contrat mooy li ma wax rek moom mooy dellu siwaat euh, mbër yi balaa ñoo jël combat nañuy waxtaan ak seen staff. staff bi nañuy waxtaan ak li nga xam ne moom mooy manager bi euh, manager bi nay waxtaan ak promoteur bi loo xam ne buñ si tolloo mu def ko wala buñ si tolloo comprendre mu doon loo xam ne lu positif la Fatma euh, di wax ne loolu rek laa amoon si lu may participer si débat bi di wax ne euh, les personnes qu'il faut à la place qu'il faut les hommes qu'il faut à la place qu'il faut Fatma toujours nag loolu moom mooy indi ñun suñu problème ñun waa làmb dañuy fekk chauffeur ñu bëgg ko dawalloo avion wala ñu fekk koo xam ne day dawal avion ñu bugg ko dawalloo euh, train du sotti euh, moo tax ku nekk nañ la jox li nga moom te ñu respectante je crois que loolu moom mooy li nga xam ne mooy doxal làmb Sa Thiès ak ki nga xam ne moom mooy Garga Mbossé combat bu neex la mais Thialis dafa ne woon euh, waxul woon dinaa dafa ne bu ñu d'accordé si kàddu dinaa leen jox avance wax ak ñoom ba tënk waaw ah, léegi nag comme yoragul lu mu leen jox je crois que foofu moom gars yi dañoo war a xaar xam ne gor moom su waxagul moomul boppam waaye bu waxee yeew na boppam euh, loolu rek laa amoon lu may wax si euh, internet yi nga xam ne ñu ngi si wasaare di leen jox seen wàccuwaay Fatma jërëjëf sama jigéen maa ngi lay bëggee bu wax yow waa wasaare tawféex ak euh, deuxième bi ma bëgg a wax ne làmb dañoo toll si phase boo xam ne lu ko soqali la ñuy wër mais wutuñu loo xam ne lu koy delloo gannaaw la tafaatin ak ki nga xam ne moom mooy Boy Niang Sa ak ki nga xam ne moom mooy Garga Mbossé Euh, bi calis di taxawal li nga xam ne mooy combat Boy Niang Tapha Tine dafa ne bëgg na bu ñu déggooyee kàddu euh, balaa weer bii dee mu jox yeneen ñaari mbër yëpp avance euh, bu ñu fàttee nag dañoo nekk si pandémie nekk si période boo xam ne wax dëgg yàlla képp koo xam ne génnee nga sa xaalis jox ko rek danga ko joxe si gëm yàlla mais xamoo fu ñu jëm parce que saison bi ubbeegul jàppaguñu date comprendre nga boo mënee yëkkati avance jox ko ay mbër wax dëgg yàlla ñu ngi ko séqal war nañ la mun a jàppale même kàddu boo ko xasee ba joxe rek tey jii nit ki nga waxal ngeen fasante couleur joxante loxo rek loolu droit da koy nangu waxatuma ki nga xam ne da ngeen a xaatim mante li nga xam ne moom mooy këyit mu yore contrat ki yore contrat mooy li ma wax rek moom mooy dellu siwaat euh, mbër yi balaa ñoo jël combat nañuy waxtaan ak seen staff staff bi nañuy waxtaan ak li nga xam ne moom mooy manager bi euh, manager bi nay waxtaan ak promoteur bi loo xam ne buñ si tolloo mu def ko wala buñ si tolloo comprendre mu doon loo xam ne lu positif la Fatma Euh, di wax ne loolu rek laa amoon si lu may participer si débat bi di wax ne euh, les personnes qu'il faut à la place qu'il faut les hommes qu'il faut à la place qu'il faut Fatma euh, toujours nag loolu moom mooy indi ñun suñu problème ñun waa làmb dañuy fekk chauffeur ñu bugg ko dawalloo avion wala ñu fekk koo xam ne day dawal avion ñu bugg ko dawalloo train du sotti moo tax ku nekk nañ la jox li nga moom te ñu respectante je crois que loolu moom mooy li nga xam ne mooy doxal làmb Sa Thiès ak ki nga xam ne moom mooy Garga Mbossé combat bu neex la mais Thialis dafa ne woon euh, waxul woon dinaa dafa ne bu ñu d'accord ci kàddu dinaa leen jox avance wax ak ñoom ba tënk ah, léegi nag comme yoragul lu mu leen jox je crois que foofu moom gars yi dañoo war a xaar rek te xam ne gor moom su waxagul moomul boppam waaye bu waxee yeew na boppam euh, lool rek laa amoon lu may wax si euh, internet yi nga xam ne ñu ngi si wasaare di leen jox seen wàccuwaay Fatma jërëjëf sama jigéen maa ngi lay bëggee bu waa wasaare tawféex ak jërë ngeen jëf pour yéen ñuy suivre sur wasaare lamb kon ni mu ko waxee woon rek nee naa leen euh, wax dëgg yàlla dafa am ñoo xam te ni dañoo bokk ci lamb parce que ñun ak ñoom ñoo far il faut que partage di ci am affaire bi di gën a yaatu bàyyi ji li euh, dégg nga sànq li nga xamante ni moom mooy père xës wax muy euh, Cheikh Ndiaye nekk coach Boy Niang hmm. li nga xamante ni moom la wax moom li mu wax ban jàngat nga ci am ñu soog a dem ci tonton Pape Diagne Seras. waaw di ko jaajëfal bu baax a baax a parce que daanaka presque presque li ñu doon wax ci début bi rek moom bi mu ñëwee loolu la parce que dafa dafa wax que ni euh, làmb ji fi mu toll ni euh, agent yi dugg ci làmb te malgré xamuñu bu baax a baax làmb nu muy doxee ñooy gën a indil làmb ay jafe-jafe. Mm-hmm. te loolu dañ koy gis ci mbër yi yëpp presque xaaj bi yëpp léegi ay dañoo am agent mbër bu ci nekk am na ci koo xamante ni euh, moo lay lijjanti sa combat bu dara desul lu dul signature contrat. wala mu signé sa contrat mu kii sa ménagère doog a dem mu wax ci lu bëree baree bëri wax ci tamit ci combat ki nga xamante ni mooy booy Niang ak euh, Tapha Tine mu doon combat boo xamante ni ñoom it bëgg nañ ko parce que boo déggee ni mu waxee nga xam ne ñoom combat bi leen gën a luñ ti am. Hmm. parce que tamit bëgguñu xale bu mel ni booy Niang ni mu mel ci làmb muy toog di def année blanche wala muy toog combat yoo xamante ne ay moromam yëpp am combat moom amul combat. te bëgguñu tamit euh, kii di tafaatin échappé leen parce que tafaatin bu rëccee rek euh, lu ci bari ci làmb fi mu toll nii Boy Niang day mujjee xaar parce que bu tafaatin rëccee rek dootul amaat beneen adversaire ci làmb mm. euh, xam naa ci dégg naa tamit ci biir yoo xam mu ne am na ñu ci am avance am na ñu am ñu laalu mm-hmm. kon su ma déggee wax ji mooy kaaw Boy Niang am na luñ jot a mos am na luñ jot a mos tafaatin jotagul ba léegi que Tapha Tine am na sortie bu ma déggoon Pape Thialis mu ne woo na ko mais dafa defoon dafa demoon reefaan benn dëj moom Tapha Tine mais bu ñëwee incha allah dinañ ko jox li nga xamante ni mooy avance am. Mm. Euh, li tax nag avance bi yeggul ci moom ba tey xëy na ñoom xam nañ ko seen biir mais lu mun a am mooy combat la boo xamante ne askanu Sénégal bëgg nañ ko. te mm. amateur lamb yi ñu ngi koy xaar soxna Fatima. Mm-hmm. ñu wax ci Gris Bordeaux ak ki nga xamante ne moom mooy Balla Gaye waaw Gris Bordeaux Balla Gaye wax na ci euh, wax ji nag euh, wax na mu doon loo xamante ni ñu ci bari ci sénégal yi ñu ngi koy xaar mu doon combat boo xamante ne xëy na euh, nekk na combat bu neex parce que dañoo bëri woon ñoom ñaar euh, Balla gay daan Gris Bordeaux donte daanu ko wël mi ngang mais daan na ko parce que bëri nañ combat bu yàgg mi euh, bëree combat bu métti far mu daan far Balla Gaye 2 daan par décision arbitrale mu doon làmb joo xamante ni keroog képp ku ñëw stade Léopold Sédar Senghor gis nga xeex gis nga bëre gis nga ambiance ñuy xaaraat loolu nag xaar bi ñu koy xaar nag mooy Gris Bordeaux pare na pour bëre combat bi parce que soxna Fadima bu ñu réere mbir Gris Bordeaux waxul benn yoon ni du ma ak Balla Gaye nee na dinaa bëre combat bi Balla mi yaakaar dafa bëgg combat man maa ko gën a bëgg combat bi. Mm-hmm. mais bëreelu ma Père Gaston. waaw parce que Père Xas mi ngi ko wax nee na ah, nañu waxtaan ba juboo mais Gris moom ndax mi ngi naan di ki la jox 10 million Euh, war na laa mën a jox leneen. Hmm. mais Gris moom dégg nga ni mu ko waxee nee nañ ko joxee 5 3 2. noonu lañ ko joxee li nga te ne moom mooy 10 millions parce que Gris moom même bu ñu ko joxee cinquante millions ñu joxee ko ko 1 1 500 2 moom jël na. Hmm. ak lu mënti xew. waaw ndax parce que moom nee na chèque barré lañ ko joxoon. moom encaissé nee sonnoon na ci après 5 3 2 lañ ko joxee mooy 10. encaissé na 10. lu mënti xew mooy encaissé na dix encaissé na dix nag buy delloo moom du ko delloo cinq trois deux un du lay delloo per Gaston parce que xam nga yow Père Gaston kenn du la ko présenté ci làmb Père boobu xam nga ni léeg bi giri di wax du ma ko bëree léegi yooyu moom daa mel ni wokkatu bu dajee gëstu la nee na ko indil ma samay ba mujjee lan la ko wax sëgg wala <laughs> doy bëre wala indi rek ñaar yooyu lay choisir waaw ah, mais nag làmb loolu moo koy neexal loolu mooy charme làmb bi nag ko bëgg soxna Fatima li tax ma bëgg ko mooy dafa xam li mbër di dund mm. muy dund ak ñoom loolu mm. euh, parce que mbër dafa bëgg xaalis Père Gaston da dafa yëkkati xaalis jox la boo bëggee lépp mu rebal la ay boo lekkee xaalisam. Père Gaston <laughs> bari na ci mbër yoo xam ne ci moom lañu amee. kër waaw ci Balla Gaye Balla Gaye golf fii golf bi mm-hmm. Père Gaston bi mu koy tugg tëggal ci. Euh, clafam boobu. moom ak ay euh, Coly Faye ak Ousmane Diop ak. ay Issa Pouye ak Euh, combat boobu bëri na ci loo xamante ne xaaj ci avance bi këram gii la ko joxee. tey bëri na loo xamante ni Père Gaston def na ko ci làmb dëgg la lu ñu mënti wax mooy promoteur bu fi ñëw. doo def lu raw li fi Père Gaston def. di nga topp ci ginnaaw Père Gaston. di nga topp ci ginnaaw Père Aziz. Ligue Nicolas di nga topp ci suñu ginnaaw grand hmm. parce que ñoom ñëpp ku ci nekk dafa bay waaram ci làmb. kon tey fi mu toll nii ñoom bëri. nañ jéem xool ni ñuy defar. Gris moom xam naa ne lu mënti xew. Mm. Père Gaston xaar ko rek bu encaissé avance bi feneen de loolu. ñëw fan su Gris nga <laughs> ñu ngi bégewaat bu baax a baax moom <laughs> jiiri ndeysaan mu nekk koo xam te ne nee naa leen dama am contentement pour partager ak moom plateau bi mm. ndax wax dëgg yàlla lim fi wax moom. jarul ñu ciy dugal dara parce que lépp nice na wax dëgg yàlla ndax nee naa leen am na ñoo xamante ne bu ñuy am na loo boo koy def. danga koy gëstu de te booy yaa ngi gëstu de macha allah. <laughs> am na ñoo xamante ne boo xoolee da ngay gëstu te macha allah euh, wax ji rafet na euh, xanaa. ñuy tàggoo tàggoo bu dul tàqali ko rek di la wax euh, lan mooy sa tàggoo bu mujj ci palaato bi. jeex na. ah loo bëggee. Ah, alors <laughs> doy na. <laughs> non doy na. non dañ koy dagg daggee parce que ñii nag. xam nga il faut que ñu leen buñ ko teglee nii am ñoom dañuy dañuy wàcc toog di xaar Wassare mu bëgg a demee euh, kii ñi baax nañu may dem 15 minutes après ñu may dem benn 15 kon jaajëf mbokk yi noonu lañ leen di tàggoo di leen jaajëfal bu baax a baax a baax safar wi nag mu ngi ñëw ñu ngi koy waajal de. sama ma yi ay ca ne la waajal màggal safar bi. Hmm. Ah, loolu dóor la wala. non dóoru ma damay màggal safar bi ku ma ci jàppale ma jël. ay loolu kay du dóor. di ko bëggee waat bu baax a baax comme sama chéri mais man moom xam naa man maa si njëkk def sama kii hmm. participation ndax yow loo dugg dama ci di ko bëggee waat bu baax a baax moom Adama ñu ngi koy remercier ci taxawaay bi ci lépp suñu cameraman bi nga xamante ni wax dëgg yàlla du def erreur daal xam nga ñi def erreur nag mais moom moom du def erreur quoi ah wóor ma kàggu ñu koy ñu koy souhaité waat joyeux anniversaire séeréer bu naages kenn du moom bu ma bu ma dugal ñoom ñëpp erreur du ñàkk mais am naa droit ne du def erreur ku koy tere ah di ko di leen bëggee waat nag ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñoo jël seen temps ah contribuer ci li nga xam te ne moom mooy émission bu ci mel ni Père Xës Père Cheikh Ndiaye boxeur mu nekk sama xarit Père Xës rek laa koy wax ak tonton Pape Diagne Seras mi nga xamante ne manager bu mag bi nga xamante ni buñ ko soxlaa rek day ñëw di leen bëggee waat bu baax a baax yéen ñi am confiance tout le temps teg seen banc seen i siège di xaar Jili ak Fatima euh, di jox gaay yépp di daje ba prochainement incha allah. rang muy gaaw rang <laughs>